ndax gis nañ ni màggal gi taxawee nañ ko comme niñ ko waroon a taxawee ndax gis ngeen organisation bi vraiment macha allah lépp jar na ci yoon gis nañ ni vraiment euh, ñi ngi leen ciy sant daal di leen ci gërëm di santaat tamit suñu borom bu ñu joxee chance ñu fekkee waat ko ren ànd ceeg ñëpp di ko màggal. fa murid yëpp. ok bu ñu Serigne Mbacké Ndiaye suñu xel day na ci li muy taxawal communauté sénégalaise bi gis nañu daaw màggal gi ni mu demee woon ak ren gën na yokk gën na gën na yokk mbooloom mi gën a yokk par rapport ak euh, phénomène bu bees bi am di sénégalais yi ñu liggéey ci biir dëkk bi ban analise kay def ci yokkute boobu nga xam ne la communauté sénégalaise bi donc mën nañu jàpp ne lu baax la lu gën la surtout ci ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais gën a defaraat taxawaay beeg yooyu ko ndax gis nañ ne human resource bi mi ngi fi te daanaka war nañu xool nan nañ ko war a mën a capitaliser ba nga xam ne ñun dinañ ci mën a gis suñu bopp ak yooyu ndax gis nañ ne ndaw yi bari nañ fi te dañoo nekk ci réew moo xam ne ñaari yëf lañu ñu gëm bu ci njëkk bi mooy wàllu euh, koom-koom ndax su la yàlla joxee alal jox la xaalis ak yooyu fii moom daanaka nekk bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom lañ gën a fonk ci réew mi mais su la yàlla joxee tamit baneen bi mooy euh, communauté bu dëgër daanaka mooy lépp donc laaj na ñu gën a organiser wu jéem a seet na la ñu boolee xol ya xel yi daanaka li nga xam ne moom lañ fi am jéem koo capitaliser nga xam ne dina nekk lu njariñ ci communauté bi. day xaw nekkul loo xam ne lu yomb la te amul papier ci noonu ak phénomène bi ñu duggee fan lañ mën a jaar yan solution lañ mën a teg lañ mën a intégré woo ci business ñi nga xam ne lañ mën a jaar a am loo lañ mën a yombalal seen nekk ci biir waaw ndax xam nga Amérique moom dafa nekk réew boo xam ne ñàkk bi kayit doo handicap peut-être dina am lu ndaw loo xam ne dina la ko yàqal daanaka mais du la handicapé totalement donc te ñoom euh, chance bi nga xam ne moom la ñu am. wuuteeg ñi nga xam ne dañoo am euh, visa normal ñëw États-Unis nga xam ne dañ lay jox dañuy déterminer temps bi nga fi war a toog ñoom loolu duñ ko am quoi ndax chance bi ñu am mooy suñ ñëwee am nañ possibilité dugal euh, asile ndax asile bi par exemple dina leen mën a permettre par exemple ñu sécuriser seen bopp ba nga xam ne pour duñ leen problème doo am rek ñu mën la déporter yooyu quoi ndax su fekkee ne dugal nga benn asile boo xam ne mi ngi pending donc euh, loolu rek daanaka dina sécuriser ci yu bare yooyu peut-être dina jël ay cinq six mois par exemple pour nga jot notification bi wane jot nañ ci te kayit boobu soo ko jotee dina la mën a permettre nga mën a dugal Euh, working permit ak yooyu quoi pour mën a liggéey am sa social wut sa ay déeg yooyu nga xam ne dañ fi nekk yee actuellement ni ñu bari ñu ngi koy am ñi nga xam ne teel nañ ko dugal ndax xam nga su fekkee dañ fi dugg ak ñoom situation biñ fi duggee mën nañ leen par exemple benn un an boo xam ne war nañoo mën a lijjanti loolu yi par exemple euh, ñi nga xam ne Sénégal participer ay euh, loolu moom erreur bu mag la ndax euh, xam nga yor business stable yombul te euh, da ngay gis ñu bari soo laajee ñu naan dañoo fay xaalis bu bari par exemple pour jaar ci yoonu suuf beeg yooyu ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jël ak risques yeeg yooyu ba egg si fii nii mais man moom vraiment du conseil kenn koo xam ne yoon nga business bu taxaw nga naan da nga koy jaay par exemple pour miiras sa bop pour jaar yoonu suuf bu ñëw États-Unis ndax ñëw États-Unis mettiwul nekk na loo xam ne mën na jàpp ne lu yomb la mais gars yi doo comprendre quoi ndax dañuy jàpp ne visa États-Unis dafa metti ndax euh, dafa am lu bari loo xam ne américains yi dañ koy dañ koy bàyyi xel ndax euh, du ñu discriminer doomu aadama ne amul yenn moyens yooyu du am possibilité pour am visa ak yooyu mais lépp mi ngi dépendre sa dossier ni nga koy monté yooyu ndax même su fekkee ne sa compte yorul yenn xaalis yi sax su fekkoon ne par exemple mën nga ne 3 millions nga joroon sa compte gis benn programme boo xam ne inscrire nga fi te wane nga ay moyen xaalis boo xam ne at least soo fi nekkee doo nekk public charge di nga mën a yor sa bopp même su fekkee ne deux millions 1 million 500 la États-Unis ñoom amuñu problème boobu ndax su ñu xamee nombre de jours yi ngi toog est-ce que soo demee di nga mën a yor sa bopp rek ñoom pour ñu may la visa nekk na lu lu lu lu yomb quoi. mais nekk loo xam ne vraiment war nga jël ay millions yoo xam ne da koy fay nit pour mu lay jéem a jàppale pour naan dalay wutal visa pour nga dem États-Unis ku ci nekk war nga mën a monter sa euh, dossier bopp sukkandiku ci profil bi nga am ak lan nga fi war a ban programme nga war a mën a dugg par exemple pour mu mu faciliter la sa obtention visa. niveau de la visa. la plupart façon visa yi gars yi dañu ndax from yooyu nekk que ci ay from euh, mi ngi am comme par exemple ñun am nañ benn forum bu ñuy wax Audi Week te année bii ñu ngi koy def diggante le 28 29 30. waaw nekk na benn programme boo xam ne opportunité la pare pare ñi nga xam ne bëgg nañ euh, ñëw états mais yor nañ profil bu baax ak yooyu yor nañ ay société yu ay chef d'entreprise lañ euh, ñooñu genre forum yi dina leen mën a permettre par exemple pour ñu pour mu ñu mën a am visa par exemple pour ñëw États-Unis waaw mais li ci ëpp solo mooy ni ngay monter sa dossier ndax xam nga ambassade États-Unis moom soo koy dugal sa dossier war nga xam ban type de visa nga nga soxla ndax type de visa yi dañoo bari mais mënoo ne da dem forum ba pare monter benn dossier boo xam ne B b la par exemple waaw tourisme ak yooyu automatiquement mën nañ ko rejeter moo tax à chaque fois da war a spécifier par exemple euh, type de visa bi nga xam ne moom nga bëgg yee forum bi ñëpp a ci mën a participer ñëpp a ci mën a participer képp koo xam ne par exemple business businessman nga képp koo xam ne par exemple étudiant nga wala képp koo xam ne fonctionnaire nga xam nga daanaka tijji nañ ko pour ñëpp quoi mais xam nga chaque année lañ koy organiser bu ren bi moom xam naa dina xat lool ci ñi nga xam ne euh, pour rendez-vous ñu ambassade ak yooyu daanaka ñi gën a ñi nga xam ne euh, actuellement ni ñoo enregistré ñu ci bari jot nañ si am am nañ seen visa ba pare ko waaw mais su fekkee ne bu deeween bi moom ku képp koo xam ne mën na koo waajal mën na ci teel a léegi su ko defee vraiment dinañ la mën a jàppale ci yu bari pour waaw ndax chaque année am na website boo xam ne moom la ñu kii Audi Week 2023 euh, point com soo fa demee mën nga registré Euh, dugal sa profil compagnie ak yooyu yëpp ak ban secteur d' nga nekk ak lan ngay xaar ci forum bi su fekkee da nga soxla benn entreprise américain boo xam ne moom nga soxla gis ak yooyu yëpp da nga koy euh, identifier si sa si formulaire beeg yooyu. waaw ma ne parti américain bi par exemple am nañ ay sociétés américaines yoo xam ne vraiment ñoom euh, visé nañ Sénégal comme pays yi nga xam ne moo gën a stable pour inscrire te ñu bari ñoo xam ne intéressé nañ ci wàllu énergie. ci wàll télécommunication yooyu am na ñoo xam ne ñu bari dinañ fa dinañ fa teewal yooyu quoi comme lif ci mel ni American Dream Infinity Corp euh, am na tamit euh, association des maires noirs américains waaw ñoom actuellement dina nañ fee ak délégation bu am solo ndax liñ bëgg daal après forum bi yu bari mën cee judd ak yooyu ko lu ci mel ni ay jumelage entre euh, cité yeeg yooyu quoi waaw euh, la actuellement nii ñi ngi expect par exemple pour jot waa PES mooy fonds d' appui euh, à l' investissement des de l' extérieur waa SEPEX ñi ngi leen ci xaar mooy agence sénégalaise des exportations am na ay 16 maires yoo xam ne actuellement nii registré nañ am na ay entreprises privées yoo xam ne actuellement nii ñi ngi ci biir ak yooyu quoi donc dina nekk euh, benn événement boo xam ne trois jours la dina am ay exposition mais comme ren moom dañ ko def en partenariat ak waa SNHLM. donc euh, dina am ay notaire yoo xam ne par exemple dinañ ñëw pour ñi nga xam ne dañoo intéressé wu ci affaire u kër waaw ci affaire u kër ak yooyu affaire u terrain ak yooyu dina nekk loo xam ne dina am solo pour euh, ñi nga xam ne dina ñëw ak ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk bëgg a jot yenn information yoo xam ne ci côté Sénégal la ci côté investissement ak su fekkee da nga bëgg a tijji compte bancaire au niveau du Sénégal ak yooyu yëpp ak ñi nga xam ni amuñu ay papier yooyu daanaka yu ci bari daal dina leen euh, information yi yëpp dañ ko mën a jot ci biir forum bi. que njëndum kër mi seet par rapport association bi. waaw ah. jël ay terrain jàmbur ñëw ah. xam nga xam nga lépp mi ngi dépendre mi ngi dépendre ci. ban structure moo taxaw pour jaay la ay kër ndax SNHLM ñëpp xam ne garanti na ndax loolu c'est le gouvernement euh, gouvernement Sénégal la waaw donc nekk na loo xam ne vraiment bàyyi nañ ci xel avant ñuy dugg euh, en relation ak ñoom ci ci ci loolu waaw ban message di leen fàttali rek ne leen euh, réew mi moom réewum jàppalante la ku ci nekk dafa war a fonk moroomam ak yooyu problème yi nga xam ne am na yooyu yëpp ñu jël ko teg li ci suuf xam ne xam nga euh, réew mi daanaka li mu laaj moo bari ndax actuellement nii am nañ ay gan yoo xam ne vraiment comme ni ma leen di jàppalee noonu la leen ñeneen di jàppalee ci biir kër yi te ñu bàyyi leen xel ne euh, situation yi ñu nekk nekk na situation yoo xam ne par exemple lu lu gàtt la ndax euh, nit su fekkee ne ñëw na ci réew moo xam ne maitriser ko xamu ko dafa laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo koy dalal par exemple gën koo leeral gën koo accueillir gën koo orienter par exemple ci li nga nekk ba nga xam ne vraiment fii ak quelque temps dinañ bi nga xam ne moom lañ bëgg pour suñu dëkk